salaamaaleykum. seet seet donc xaaral ma peñe sax ci lii pot dugg si. peñeel peñeel peñeel. peñeel balaa dara xew. wax lu garaaw da nga lim. ñu amul benn problème. ah monsieur le maire Pikine de Modou Lo mooy monsieur le de. d'accord mais waaye le 24. le 24 laa lay wax. le 24. le vingt quatre bii nii waaw bii la xewati roi bi dem jàmm gën ah, eh, xelu foofu njër gi sedd ma naan waaye pot de xam nga ne moom bu ñëw bari cool yi dina te loolu ah maa wax fii tey capturé le vingt quatre incha allah roi bi dem jàmm gën <laughs> pot pot pot pot indi ku ne waaw ku nekk Modou Lo daan ko. d' accord yéen a ngi seen Modou Lo daan ko. dëgg la nga Ama Baldé Modou Lo daan ko. d' accord naa nga indi ci njob boo ñëw d' accord jënd licence jàmm indi si te. waaw. bi li si neex nag mooy bii nii la kenn foogul. bii nii la kenn foogul ba ci yow gis naa mu leen di ruube naa leen dara di télé jàmm gën mais c'est que xam nga faram. Ah, ah. c'est lu leer nañ laa lay wax gis nga gis nga gis nga victoire bii nii moo nar bet bett Sénégal victoire Siteu bii moo nar bet senegal Sénégal kenn du ko foogee maanaam maanaam analyse yi gën a garaaw maanaam li nit ñi di analyse yëpp gars yi du ñu gis combat bi parce que fu to toll nii ñëpp lenn lañ gisoon ñëpp lenn lañ gisoon muy victoire u Modou Lo nee nañ moo ko mën nee nañ moo ko ëpp doole mais Siteu dafa leen wax lu am solo nee na moom mm-hmm. ndax musu ko sonal wax bu garaaw la leen wax. ndaama musu ko sonal te am na ay faay yu muy def yoo xamante ne nee na su ko defee ci kanamam da koy koŋ te xam naa faay yooyu lan la mën naa la ko wax tey. faay yooyu lan la ko. gis nga euh, Modou Lo dafa am dafa dafa am ay tic gis nga Modou Lo ah euh, man pour man su ma ko doon conseillé dama koy mën a defi MMA li muy def su demoon defi MMA da ci ay mën na mën na mën na nekk champion du monde gis nga Modou dafa mën fent ay fent ak yooyu noonu. léegi gis nga fent yooyu noonu soo ko mënee canaliser te noonu la Balla Gaye di bëre ak moom soo ko mënee canaliser rek ba ne ko niip ba ne ko niip rek jeex na combat bi jeex na c'est-à-dire que tey fent yi ngay éviter maanaam tey soo soo ko toppee ci ay fentam da lay rey vrip vrip mën nga def nii nga quatre appui mu daan la wala vrip vrip wala nga ragal ay kuum di am leen lu ngay sooraale mais man dama gis Siteu bi ma gis lu mu indi contre Lac de Guiers laa la wax su ko indee kon Modou Lo Modou Lo fori Euh, maa ngi doog a dugg nag ci question yi. Mhm. ak alaaji mu baax mi. Mhm. ngay xaar ci Siteu contre looy xaar ci Siteu lan ngay xaar ci moom muy indi la ko contre Modou Lô. Zarko bul mer Zarko bul mer bul mer Zarko bul xeex bul indi problème non Zarko bul aalu bal problème yi looy xaar ci Siteu contre Modou leen rek lay xaar ci Siteu contre Modou mu indil ma li indi. contre Lac je ne sais pas ndax gis nga combat bi Siteu indi cest à que Siteu dafa indi woon loo xamante ne tey dafa suul ay tànkam ne Lac de tey jii nii du ko yóbbul dara du doole du fit du raak xeex dañoo xeex dañoo bëri jaxasoo mooy maanaam ñame xam nga lag ñu bëri ñii di bëri moom dañ ko ragal moo tax mu leen di daan wala ñu am problème ak moom mais bii paa ku xooloon combat boobu noonu gis Siteu lu mu indi sañ-sañ sañ-sañ dëggantaan ni que lii nii combat bi du lu muy ñàkk te man gëm naa ni Siteu lay indi contre Modou Lo te day am ndam incha allah. Pod ba léegi tontu woo ma lan ngay xaar Siteu ci contre Modou Lo lan ngay xaar ci Siteu contre Modou Lo ndax boo ne dafa bu indi lu indi woon la de guerre numéro uh-huh. mais ni mu réagir combat ak Lac de Guiers ak ni war a réagir combat combat ak Modou Lo du nekk benn. léegi kaay ma expliquer la benn yoon. waaw kay man dama bëgg lu leer. lu leer nañ laa lay wax ma wax la nu combat bi du demee mu leer lu leer nañ suñ ñëwee prip suñ ñëwee prip Modou Lo da kay song loolu man maa la ko wax tey combat bi suñ ñëwee prip Modou Lo da kay song Modou Lo du taxaw. di lewtoo ak Siteu du ko def Modou Lo combat rapproché lay def Modou Lo day bëgg taf-tafee si nga euh, ci seconde yi njëkk yi la bëgg taf-tafee accéléré ko ay coup yooyu noonu muy def wàcc comme nu mu def euh, euh, kii contre Ama Baldé même chose lay indi dina ko taf tafee taf taf taf taf noonu ak fentam yooyu muy def ci suuf di xaar leen rek lay xaar fentu suuf kii waaju dóor ci suuf mu àgg doori ko am amko euh, amko am hypercute wala dara ko ba pare parce que faut mu je ko toucher avant mu koy song. Modou len lay mu chercher day toucher avant mu song te man man ne du ko bay mu ko du jël ko Modou Lo Siteu xam suy da da cadre da combat bi ça veut dire que tu si une seconde, tu une seconde tu rêves une seconde a na combat bi Tu xef une seconde cadre ko mu une seconde. mu te Tu su combat bi une na Tu mais tu une seconde. Tu na combat bi une mais une seconde. tu ne seconde. bu combat mais voilà. te Modou Lo dafa am rapidité. Hmm. am benn attaque bu muy def boo xam ne kom comme gaynde gu gis yàpp lay mel. dëgg la tey pour Siteu mën a mucc ci loolu pot pour mu mën ci loolu. lan la hmm. Siteu di def pour mën a mucc ci Modou Lo. non mooy mooy mooy maanaam xam nga tey euh, yaakaar naa ne loolu Siteu travaillé na ko rapidité bi souplesse loolu yaakaar naa ne Siteu travaillé na ko parce que suñ jàppante suñ jàppantee dinañ bëree dinañ wure man loolu gis naa loolu suñ jàppantee dinañ wure te si biir wuree bi la la jële bi di am te Siteu billaay tëlewul bëri man xam kañ laa gëm ne Siteu tëlewul bëri ba ma seetaan ni Siteu Zarko Siteu Zarko man si laa xam ne Siteu tëlewul bëri dañ ko xeeb gars yi dañ yaakaar ay combat yoo xamante ne genre ay ay day jékki-jékki ni am chance daan wala genre yooyu noonu non Siteu dafa mën a bëri man contre Zarko la laa xam ne kii dafa mën a bëri te am na doole loolu laa gëm loolu laa. tey jii su ma su la doon laaj ay qualité Modou Lo. Mhm. lan mooy qualité Modou Lo. waaw Modou Lo wax dëgg fa yàlla nagaa ah, euh, dañ koy dañ koy seedeel lu mu mën quoi xam nga man moom du ma soxor parce que man Modou Lo lu tax sax mu soxor moom c'est parce que ndaanaan la en fait ndaanaanu bëri la c'est que Modou psychologiquement man dama gëm ne day napp mbër yi avant combat te mbëri li ñu koy sóor dafa de léegi qualité bu je pense que côté psychologique le quoi. Mm-hmm. deuxième qualité moi côté entraînement physique. les les côté psychologique c'est moi côté mental bi. mental bi. léegi athlète bu mentalam fort. Mm-hmm. boo ko bëggee percer noo koy def. voilà non du ma dugg si touché man dugg dugguma ma touché ko man damay wax sama dëggantaan parce que modlo même si jëlee coup Modou Lo même si jëloon tey coup coup cité mhm. man pour man déstabiliser il est très fort mentalement. Mhm. parce que man dama doon xoolaat encore combat wu Boy Niang ak Modou mais dafa mel modlo Modou Lo coup boynia mhm. mais ba tey soo xoolee. réagir wanu ko wanu ko ci yaramam ne exactement wanu ko ko si dóorante bi soo gisee modlo, Lo dafa continuer li mu doon def par contre. Mhm. Ama balde, bu mu jëlee coup modlo, Lo daf ko won carrément ne jël naa su coup. Mhm. dafa arrière rek modlo fekk ko fa. donc côté boobu noonu si ngay sentir ne côté mental modlo il est très fort mais par contre man pour man maanaam si dóorante su nekkee si dóorante foofu noonu le modlo di amee chance moo tax bugguma Siteu taxaw naan day dóoranteeg modlo mais ka ka nag. waaw ndax mhm. niveau entraînement. Mhm. ci mhm. niveau contact. ndax mën na koo daan te du ko touché. waaw. xam nga tax xam tax xam lu tax tey la rallongement rallongement may na Siteu mu mu touché ko. rallongement may na ko ko Modou Lo mooy koo xamante ne maanaam même soo amee rallonge moom su la tafoo su la tafoo mën na la toucher te doo ko toucher te loolu la Eumeu Sène def keroog contre Tapha te Tapha te loolu xeexu Eumeu Sène la Eumeu Sène da dalay jege di dóorante ak yow te doo ko dóor même si nga ko ëppee rallonge mais maanaam mhm. par rapport ak ni ñuy fentee coup c'est une technique la Modou Lo moom mën ni toucher coup toucher da lay hmm. parce que so xolé man dama encore combat Modou ak Bombardier mais je sais pas na combat Bombardier mais taxaw na ñaar Bombardier ay yu tip tip tip rek. wa légui man bëgg su bu ñu duggee ci niveau entraînement wala ñu dugg feneen day gën a compliqué ci yow. mais côté mental bi côté mental bi fa la combat wu Modou Lo Siteu ndax mental boobu moo diriger xeex ba moo diriger bëre ba moo diriger nan la athlète bi war a comporté woo ci biir géew ba. waaw d' accord naa d' accord naa. léegi nag côté mental boobu laa bëgg nga wax ma fan la ci Siteu mën a jaar ba mën a rey ay favori Modou Lo. waaw moom laa moom laay wax moo tax ma ne maanaam tey xam nga côté mental boobu noonu ah il faut que tey Siteu mu ñëw su ñëwee mu jéem a sóoraale un peu lu Modou di indi maanaam mu bañ a ñëw rek ne man damay ñëw indi sama bëri te damay ñëw rek songu wala damay ñëw rek taxaw c'est-à-dire que nuy sóoraale li Modou di indi Modou fu mu jugee mu am lu mu préparé comme un ma Eumeu Sène lu mu préparé woon Sa xam nga Modou euh, euh, Eumeu Sène ba muy préparé Sa soo gisee ci interview keroog Eumeu Sène mi ngi koy wax nee na dama taxaw xam naa Sa Thiès li mu nar ba préparé naa loolu ba teg maanaam il faut que tey jii nii ci stratégie Siteu mu préparé Modou Lo lu muy indi te man lu ma koy conseillé na xam ne suñu nee prip Modou du taxaw di lëwtoo ak moom da koy song xeex bi lay bëgg da koy imposer léegi na pot nag yow loolu yaa ko wax saa yoo déggee ñu ne Modou Lo cadré na Siteu dugg na ci surface Siteu boobaa looy conseillé Siteu da koy conseillé mu arrière wala da nga koy conseillé mu bëri combat rapproché wala da nga koy conseillé ci lan lan. lenn laa koy conseillé. Mm. bu mu ragal la jël ku Modou parce que coup Modou Lo force. mais mooy danger bi nag. du danger. man ragaluma loolu. moom la am moom la Ama Baldé jël moom la Boy Niang jël ñàkk seen i parce xam nga Ama ba muy jël ba jël ba muy jël coup bi jëlu ko pour dem songi c'est-à-dire que da doon da doon dóorante mu jël ko mu arrière Modou Lo da ngay jël kuwam pour dem di ko songi ku ku yooyu la Balla di jël Balla Gaye Balla Gaye suy jël kuwu Modou Lo da koy jël parce que mi ngi koy dem jàppi na jël kuwam su ko waree dem jàppi maa la wax loolu Fadam Siteu suy jàpp mutlu Lo bi jeex enregistré ma lii. laa ilaaha nga ne bu jàppe Modou Lo combat bi jeex. combat bi jeex na su koy jàpp komba bi di jeex da koy daan. lu leen nag pot pot Modou Lo Siteu kenn weddiwu ne mën naa daan mutlu Lo mais li ma gis ne pot. Euh, lan la lan la. lan la tey jii bu fekkee ne Siteu mën na daan Modou Lo mais bu fekkee ne Modou Lo daan na Siteu léegi nan la pot di def léegi. non man da ngay da ngay nekk supporteru Modou Lo xanaa kon. non non man dama ne Modou Lo man dama. wala da ci Balla Gaye da ngay dem wéeru ci Simba. waaw non man dam euh, non boobu gëmuma mu amaat si Reug Reug laay dem wéeru di xaaraat <laughs> mais suñu suñu couronne moom du ko yóbbu. <laughs> suñu couronne suñu Reug Reug Modou Lo nee na daa pare pour daan ñëpp. waaw jël couronne bi. man dama mayaat ñaari combat su paree si Siteu dama mayaat ñaari combat. <laughs> rëgg kon doo découragé. non du ma découragé. gars yi dama mayaat rëgg yi ñuy seetaan bi. pot dama ko jël diggante Eumeu Sène ak Modou Lo. Modou Lo daan Eumeu Sène Modou Lo ma jëlaat ko diggante Ama Balde Modou Lo. waaw Modou ma jëliwaat pot. ki diggante Modou Lo Boy pot bu léegi découragé waaw moom daal nee na chaque jour du moom daal moom daal moom daal ñàkkul courage wax dëgg yàlla supporter bu baax la ku am courage la mais pot fo nga jëm ak Modou Lo pot foo jëm ak Modou fu ma comme bi eh, kii waa kii arrêtera Modou Lo loolu moom question kii arrêtera Modou Lo te man gëm naa ni si télé doon fa yàlla eh, eh. gëm naa ni si doon te incha allah ba amoon ay conseils yoo xam ne tey jii ndax ay. instant yii am na ñaari mbër yu mag yoo xam ne ñu ngi lay seetaan nii en direct ñaari mbër yu mag ci Sénégal. waaw ñu ngi lay seetaan. mais tey jii mais nag mais tey jii li ma laaj boo amoon conseiller yow. boo amoon conseiller booy jox Modou Lo. waaw. boo amoon conseiller booy jox Siteu astafurlah. waaw boo war a réagir diggante boobu Modou Lo loo koy wax. lenn rek laa koy wax. na ñëw indi confiance. ak gëm-gëm ak fulla ak fayda bu mu indi woon contre. même entraînement force te gis naa ne yokk doole si man lu ma gis image yu ma gis forme bu ma gis man gëm naa ne Siteu mi forme léegi forme bi Siteu àndal nii nii man leer na ma ni su dëggalee boppam contre Modou Lô cest mu gëm benn affaire rek ne gëm ne da ko dafa war a jàpp waaji dafa war a jàpp waaji pour combat bi jeex loolu na ko gëm bu mu dóoranteeg moom bu mu nekk foofu noonu naan loo xool damay jéem. première danger bi daan Modou Lo dama la ko tegal man seulement bi. waaw ku bëgg daan man nag loolu laa gëmul na foofu moom d'accorduma ak yow waaw foofu d'accorduma ak yow gëw ma ni Modou Lo nga duma ko pour daan ko. fekk Modou Lo ngi ànd xelam waaw. nga génne ko ci ay pexeem day jëfe. waaw peut-être. faux mental bi nga jaxase ko mooy nga jaxase ko mooy nga dóor mu pertivé. waaw non d'accord naa ci yow benn affaire mais loolu day fekk nga jàpp ko ba pare. saa yoo déggee ñu ne Siteu ak jàppante nañu. waaw ba droite Modou bi libre. waaw. yéene ma loolu Siteu. waaw. damay bëgg Siteu combat bi muy bëree du combat wu gàllaaj du combat doole du combat wu kaay ma bëreeg yow. Mhm. combat wu stratégie de combat lay teg. Mhm. mooy mbër moo mën a gis ci àdduna am na ko arrangé am na ko arrangé wul. dëgg la mbër mën a gis ci àdduna am na noo xam ne ni tey boo ko bëree du ko arrangé. am na mbër mu mënti doon ci àdduna am na noo xam ne boo taxawee du du ko arrangé. dëgg la léegi nag Siteu lan lay indi ci làmb lu Ama Baldé indiwul. lan lay indi ci làmb lu booy ñang indi wut effectivement lenn léegi nag waaw man mënu maa wax mais pour dama gis Modou Lo man man maa gis man waaw dama gis Modou Lo boo xam ne ku du ma wut boo ko daan ku ko tegul ay coono kon Modou Lo état de forme bi mu yor guddi yi ñu toll moo mm-hmm. gën deux fois bi mu am contre ba Ama Baldé moo gën deux fois bi contre Boy Niang léegi Siteu man dama gis ci moom lu mën a daan ku dul Modou mais l'autre, vous l'écoutez mais yow mais yow mais yow d'accord ngeen defet damay wax rek defet ah ne ngay doon. man parce que tay so xolé modlo ba mi man n'a du combat ba mais dama attends mais lan la quoi en fait qu'est-ce qui se passe modlo Lo num ko ko même si la def na mais confiance bi Balla àndal. déedéet Balla Gaye numéro 2. waaw moom Modou Lo soo gisee muy yomb ci Balla Gaye numéro 2. Mm-hmm. Balla Gaye du daan Modou ci doole. du ko daan ci damaa mën a bëre. Mm-hmm. du ko daan ci gàllaaj da koy daan ci stratégie. mooy sama ah. waxu démb day dellu si waat Balla Gaye numéro 2 li muy bëre ak Modou Lo da koy préparé këram da ko indi stade. moo tax ma ne chaque jour surtout muy bëri si Modou mm-hmm. benn point bu nek ci combat moy niveau stratégie de combat bi lool nak man am na lu ma ci xam mais mënaguma wax ndax man pour mo mën communiquer mhm. day basé wu ñaari open de pression mbeuri jall ba vendredi mo dogu mën wax te dogu mën wax mais dal tey jii tey jii tey jii fii may wax ak yow ni fi may wax ak yow ni mhm. kon am na benn structure bu tek lu upp 250 millions ci ku nek moy digënté Modou Lo ci te ku daan brick Balla Gaye numéro 2 te japp na né kassa ba bañ lay fay dina romb deux cent millions. loolu bi nga ko déggee loolu wax. waaw loolu moom loolu jar njarndeem la parce que couronne roi bi. ak am war ko bo loolu moom. loolu ka loolu fa la ñuy waxee làmb moom fa lay jaaree moom waxuma la dekki rek mais waaye loolu beneen niveau la yóbbu làmb. parce que loolu ceinture yi ñuy unifié la day am dañ koy gis ay UFC ak yooyu noonu. nga mm-hmm. boole ñaar mu nekk benn loolu. moom lu extraordinaire la mais. su boobaa nag moom yaakaar naa ne Balla Gaye Modou Lo xam naa dañuy dem lonkuwaat ci Balla Gaye rek su fekkente ne Modou Lo daa daan. kon ndax ñemeti ngaa wéeru ci kenn. non man man man lenn la lenn laa wax man man Modou Lo na ma may trois combats avant muy bàyyi xam naa ne mi ngi waaj a bàyyi na may trois combats avant muy bàyyi. ah mais xanaa amoo confiance ci sa mbër bi si jàpp naa confiance de. mais c' est que mais dama ñaanal Modou Lo day daan man loolu laa gëm. man nee naa loolu laa gëm mais waaye on sait jamais xam nga rek làmb moom dafa dafa làmb dafa garaaw làmb dafa tëradi. Euh, làmb dafa tëradi. saay saay <laughs> non mais tey jii boo amoon lay wax Modou Lo loo koy wax comme ni nga rek laay wax Modou Lo ah bon très sérieusement euh, bu mu am excès de confiance trop waaw lenn moom gis naa ko euh, bu mu xeeb tamit Siteu man fenn commencé jàpp confiance ten laa commencé jàpp confiance ci combat bi mooy Modou Lo ba mu dawee Tapha Tine jël site ma sama xel Modou Lo xamul sax ne Tapha Tine moo gën a yomb ci moom mu dem nag dem di jëli Siteu te xamul ne mu ngi dem jëli musiba te souvent loo xeeb nag moom mooy comme ni ñu waxee loo xeeb moom mu lakk sa donc na moytu cité bu baax a baax a baax a dama dama lay joxaat benen exemple nga bay ko xel ci mbër hmm chaque jour ku ñu mënta daan. Mm-hmm. mbëru lamb yi ku ñu mënta daan. Mm-hmm. kaka daan la ñuy jéem ci. ok. kan mo daan ball Gaye. Boy Niang. ak kan. ak Eumeu Sène. Eumeu Sène kan mo ko daan. modlo akan kan akan ak kan ah Boy Niang kan Boy Niang bi daanaat Balla Gaye 2 kan moko ko daan Boy ah Modou akan ak kan ak tafatin tafatin waaw moo tax Balla Gaye numéro 2 njëkkalante cible bobu ok pour jéem a daan tafatin ray defet bi amoon noonu ci diggante ba Boy ray defet bi amoon ci diggante ba Eumeu Sène ëmma seen taxawee ne ko Balla gi maa la daan mu ne ko maa daan ki la daan saa yi boo ñaa taxawee ne Balla gi numéro 2 maa la daan mu ne ko maa daan ki la daan. dëgg la moo tax lamb day am ay calcul yi nekk ci suuf fii ñu toll nii ëmma seen moo daan Balla Gaye ñaari yoon. mais mhm. ëmma seen moo rêvé bëriwaat ak Balla Gaye. ah. waaw. lamb jaxasoo la de saa yi lamb ji daa jaxasoo de. non lamb dafa jaxasoo parce que. loolu làmb moom dafa jaxasoo mais yaakaar naa ne. waaw Eumeu Sène moom am na position boo xamante ni moom su toogee soxla soxlawul sax muy waat moom su toogee affaire bi dina wure ba ñëwaat ci moom ba nga xamante ne roi bi sax day bëgg bëri tak bëriwaat. waaw loolu loolu nag loolu nag il faut mu am promoteur. waaw voilà. il faut mu am mais man mhm. li ma la bëgg laaj mooy. Mhm. Pod am na lu ngeen ñu diggoon yéen ñi nga xam ne tey jii yéenay cinéma. mooy téléfilm yi pot bul tax làmb ba léegi jéewu leen ci film boo xam ne nii dinañ ko mën a jaay niveau international ba léegi Ildi Sarr nekk fi Jonwaar nekk fi Ñoojoor nekk fi Sokone nekk fi te dëkk yooyu yëpp di ay dëkku ndox yoo xam ne ay la ah ñi ñu am dëkk yu baree baree bari yoo xam ne culture bi mën nañ ko fa mën a jaay te làmb bokk ci sport boo xam ne bokk na ci li ñu gën a seetaan ba léegi yéen jéewu leen film boo xam ne nii wala documentaire boo xam ne nii jaar ci wàllu làmb Euh, yaakaar naa ne kon euh, li nga wax nii nekk na nekk na nekk na lu garaaw mais lenn moom mun naa ko moom ma annoncé la ko benn yoon. waaw. ñu ngi préparé loolu. ah loolu man maa la ko yaa may dégg. ñu ngi préparé ñu ngi préparé série ci làmb. ah yéen a ngi préparé série ci làmb. la làmb rek. waaw jàppal loolu. mënu ma cee sori nag mais jàppal ne ñu ngi préparé série ci mais champion du monde bu bees bi ñu am te mu nekk ci wàllu MMA kër bi nga yëgee ne Omar Kane rek nekk na champion du monde ci MMA lan la lan la def ci yow. Euh, jour boobu wax dëgg fa yàlla jour boobu dama nekkoon si jour boobu laa dama toog ba ay six heures du matin toog ba ay six heures du matin di xaar ko dama cinq heures six heures waa ay cinq heures du matin. Mm-hmm. guddi gi yëpp ma toog di ko xaar. jour boobu dama seetaan combat bi damaa ba dafa ma fàttaliku temps yi ñoon toog di xaar ma ci Sénégal yi. mais fierté laa ci am jour boobu. fierté bu mag a mag a parce que dafay wane ne ñun suñu làmb ji nekkate am na niveau. suñu mbër yi su fekkente ne mbër yi nga xamante ne tey imaginer ñu ne ñun waa ji du sax roi des arènes fii Sénégal mu dem à l'étranger champion du monde kon ça veut dire que niveau làmb ji. kawe na quoi ba nga xamante ne waa ji nekk champion du monde foofu noonu mënu sax nekk roi des arènes fii Sénégal. Mm-hmm. donc loolu daal lu mm-hmm. mais mais mais mais comme tey jii téléfilm boobu tamit ñu ngi ciy xaar ku mel ni Omar Kane rek nga xam ci làmb lu soqe ko. Mm-hmm. tey dem ba nekk niveau international ci digganteem ak Modou Lo. waaw waaw waaw non effectivement. non foofu foofu tamit bëgg nañ seen film bi jaar foofu mooy Omar Kane rek bëgg nañoo am ci moom ay séquences ci niveau lutte simple fi mu ci déparé. ba tey jii fi mu jaar ba Dubaï tey jii mu dem ba nekk champion du monde ba tey jii ñu ngi naan ay digganteem ak Francis Ngannou digganteem ak Nangam bu jëyee bay Aziz Alain déclaration de tey jii. Mhm. mën millions de dollars nga xam ne tey jii bu ñu ko xoolee ay centaine de milliards la tey jii. Mhm. ci côté Omar Kane rek mhm. yooyu yëpp. ay proposition la mais côté làmb da ngeen cee am ay yu bëri yu ngeen war a mën a jaay. waaw dëgg la non en fait làmb mooy suñu culture mooy te tey parce que soo xoolee film film di ci am solo mooy da ngay jaay sa culture. te ñu mhm. am loo xamante ne wóor loolu la war a mën a jaay nit ñi mooy suñu làmb ji. tey jii nii ñu leen jaay football mënuñu leen jaay ay ay ay fii Sénégal ay kër yu rafet ak ay yenn affaire amul dara fii loo xamante ne ñun am nañ ko te ñee amuñu ko donc làmb ñu mën a wane su suñu réalité yi suñu xarfa xuufa yeeg. Mm. pour que tey jii nii tubaab yi du ma sax tubaab yi kase ah ci Afrique mm-hmm. ci monde entier ñëw gis wala découvrir ne ko affaire ñun naka lañu leen di wane ñun suñu ay réalité mun nañ ko def film mu nekk ay série gars yi xam carrément. ay série bëgg ay série lañ bëgg yoo xam ne nii day am continuité. exactement parce que làmb euh, lamb dafa charme mooy li ngay wax nii en fait làmb charme te charme lamb comme ni koy gars yi di wax des fois tey combat euh, préparation combat rek mbër yi xam nga mbër yi ñëw tuus en fait lépp liy nekk autour muy maanaam préparation mystique yeeg yooyu noonu loolu daf si nekk yu am solo yoo xamante ne tey lu ñu war a mën a jaay nit ñi la parce que tubaab bi loolu da leen di. am na loo xam ne fii ci kii bi mooy. Uh-huh. Sénégal suñu arène nationale bi dañoo am lu ñu échec ci benn côté. Uh-huh. mooy làmb dafa waroon a am musée. Uh-huh. boo demee kër ñoom Balla Gaye la bàyyam daan sol di bëre nga fa mais amul feneen ko teg pour présenter ko. Uh-huh. maam góor gi Njaay la daan sol di bëre mu ñoo ko denc mais amul dara fuñ ko teg. booy bambara mooy yoroon drapeau arène sénégalaise. drapeau yooyu mu nga këram amul fenn fuñ ko musée bi fuñ ko teg. Uh-huh. tey am na les grands champions yoo xam ne nii tey ji boo demee ko ñoom Ama Balde Falaye Balde ngemb dalaa daan ngemboo ak bagage yi ñu ngi ko denc ci nekk. te loolu musée bi da ko waroon a jënd ñu koy visité ñoom ñu am ay paiement yoo xam ne ñoo ko moom. non loolu moom. non loolu non loolu moom loolu moom yaakaar naa ay archive loo xamante ne loolu sax lu ñu war a mën a wane la. ci film wala ci ay ci ci film loo xam ne film international lay doon. te bu ngeen demee RTS bu ngeen fa demee dañ leen di jox musée yëpp dañ bagage yëpp lañ leen di tax làmb daal pot jàpp naa man ci sama xalaat man. Mhm. mooy bokk na ci guddi yi ñu toll.

mi ngi noonu loolu dañ ci waxtaan kontaan naa kontaan naa kontaan naa amateur lamb mag nga. waaw mi ngi noonu de. maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax kontaan bi ngi. jaajëf jaajëf yi yaakaar naa ne moom.